actrice wala sax ki nga xamante mom moom présentatrice wala sax ki nga xamante rek mom moo mannequin bobé nga xamné mom moom ndey ndak Touré nekkoon fi ko xamante rek à travers les écrans de la télévision Futur Média TFM ak fofé nga xamante rek mom moo ci ca 2 TV def lu am solo ci li nga xamante mo jëm ci wàllum animation mujjé à la fin li nga xamné rek mo jëm ci wàllum politique mom ndey ndak Touré nak daal dinay déglu ah, daal dinay dégg a ah, jamono gi elle répond au nom de ah, Mrs Sokhna ndey nak nak ganna ba mu voilé woon nag yàgg yàggul euh, ça fait un euh, un moom Ndeye Ndack kenn gisatu ko ci li nga xamante ne rek moom moo di écran yi ñëpp ne Ndeye Ndack lan la ñii sax di wax naan day dem sax ba Ndeye Ndack kat nañ ko xaara ci assemblée bu yees bi nga xam ne rek quatorzième législature bi nga xam ne rek mu di le 17 euh, novembre bi ñu jëm mu di assemblée bu bees xaar bu bees foofee nga xam ne rek moo di ca pencum ndaw réew ña ñëpp doon ko ci xaarandi moom Ndeye Ndack Touré naka daal dinay génn carrément ci paysage médiatique bi ñu gis ci beneen facette ndaxte fan yëpp ñu ngi koy gis à travers Snapchat ak TikTok moom moom l'actrice Ndeye Ndack wala sax mannequin boobee nga xam ne rek moom moo di Ndeye ci li nga xamante ne rek moo jëm ci tendance mode ak beauté Ndeye Ndack la amal ab ne mi ngi décortiquer li nga xam ne mooy sa vie Ndeye Ndack nag nekkoon koo xamante ne rek ay jamono daan nañ ko gis à côté d'Ousmane Sonko ci nag ne rek moom le PM premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko nekkoon na fi li nga xamante rek moom moo di ab opposant Ndeye Ndack daan ànd ak moom ci xeex bi nga xamante ne rek noonu la ñu noté woon li nga xamante ne rek moom moo di gis ngeen ko noonu mu daal di téye li nga ne moo di kaamil bi yor kurusam naka daal dinay am borom kër nag moom moo ko daal di fësal sax nee na ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko dem na sax ko téléphone échanger ak moom ci lu baree bare bu ko def li xam ne rek moom moo di député wala sax ci li nga xamante ne rek jox ko ab poste boo xam ne day yëngu ci wàllum aada ak cosaan mu di wàllum culture comme moom dafay yëngu ci wàllum culture is waaye itam di def lu am solo ci li nga xamante ne rek moo jëm ci wàllum culture fi nga xam ne moo di ci diwaanu Sénégal Sénégal ne période boobu dafa tombé tout juste rek muy soog voilé wu itam nam yoon bi nga xamné jël nañ ko récemment ñi ngi gis ay image fofé nga xamante modi ci diwana ca mukaram mu démon fa mom day ndak ñepp naan day ndak changement bi nga xamante amna ci mom lan moko waral ndekete lépp nak day ndak mën nañ sax comme ni ko ñenn ñi di waxé elle s'est reconverti à l'islam day ndak nak jamono gi nak muy wuyoo Mrs Soxna mu nek lo xamante rek alors bu ñu waxé reconvertir bi nak ci euh, paysage bi nga xamné fa fa la nekkoon ci wàllu mannequinat bi ak habillement bi nga xamante ne amoon na ko ndaxte moom sax moom moo ko daal fësal ne ne du forcé kenn muuru parce que certes la soxol nee na nag du forcé kenn muy muuru loolee waral sax le fait que Ousmane Sonko proposé ko li nga xamante rek moom moo di ab poste pour sax mu ñëw rejoindre leen nee na nag amaana sax dafa xaw a doy waar waaye aussi tamit nee moom état amul lu mu koy jox dox état amul loo xamante ne rek war na ko ko mën a récompenser ndaxte nee na xeex boobee nga xamante ne ñoom ñu ngi ko doon xeex ak yeleef la waaye itam xool Sénégal naka lañu leen nootee woon naka la ñuy def kéem kàttan rek ba Sénégal am indépendance Sénégal am li nga xamante ne rek moo di xar kanam gu yees ak ay ndaw loolee waraloon mu dugg ci combat bi dem sax ba euh, ndey ndaak sax ñu daal di ko fiy wóolu ñu daal di ko fiy wóolu tollu ci ñaari fan rek daal di koy def sax ba sax ab garde à vue mu dund ci lu metti ba mu génnee nag ñëpp ne ndey ndaak bàyyi na politique bi ñu gis tey beneen facette à travers Xibaar TV HD di ko souhaiter heureux moom Miss euh, Soxna